ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi ñuy suivre ci chaîne bi di Likzo TV mais gars yi su fekkee gan nga ci chaîne bi sûrement mën nga abonné nga bësaale su cloche pour nga xam ne vidéo bu bees bu ñu dugal rek nga li nga xamante ne bi wax na ko ci diggante Ngaaka Blindé ak kooku nga xam ne mooy jabaram Fatel ak kii nga xam ne mooy Maya ak Griff Diouf gars yi ñu déglu ko bu baax a baax a baax salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi ma waxati rek ñu ne Adamo soxor Fatel gis ngeen ko génn na def na live moom ak Girif Diouf ak Maya ñu koy conseil mu nekk fanaan sama jëkkër lii sama jëkkër laa nii lay def na la lay def lee la bëgg bëggul lii faatal usaareel sa xel bi mu baax ba ngay génn ngaa ko belen génn nga ba nim lay takkee kenn yëgu ko affaire bi bett ñëpp kon bul dem ba ci biir sëy bi ngeen di sëy yéen ñaar li ngeen di dund seen diggante yéen ñaar la war yem nga koy yóbbu ci réseau yi Maya bu amee lu mu lay conseil wala Girif mu woo la téléphone ku ne xam na diggante Maya ak Ngaaka Blindé mu mel mu sol dàllam ñëw seen kër wala nga ñëw këram wala mu woo la ngeen gisante ngeen waxtaane ko mais Manga da ngay ñëw ci continent di nga meloon da ngay ñëw ci réseau yi naan ay sama jëkkër lii sama jëkkër laa continent di nga meloon yaa ngi dégg siiwul woon ba nim lay takkee continent noonu wax baaxul réseau yu baaxul te nga góorgóorlu nga sëy ku la ko waxul dalay nax réseau yu amul benn njariñ sama jëkkër lii sama jëkkër laa amul benn njariñ amu ko